jërëjëf mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel MPROD yi mbokk yi jëmm ji mooy sëriñ Mame Cheikh Fall di borom xam-xam tey nee na ma dinaa la wax ban erreur la président Macky Sall mën a def ba tax Sonko wër ko ndomba nekk président mais Sonko faay bu ndaw bii rek bu ko defee du mas a falu ci giir dundam danañ ko laaj faay yooyu yan faay la nee na ma M23 mouvement la woon boo xamante ni ñoo faloon Macky Sall tey dinaa la wax chiffre am la taxawee woon. ak F24 bi xewaat nii nga xamante ni moo jëm ci 2024 te lii rek mën a fal Sonko ci kaw ne ma sirru bi nii tey dana teg tablo bi leeral ñu mbokk yi dunduk doomu aadama fa mu tàmbalee ba fa mu yem sëriñ bi nee ma maa la koy wax ba wax la ba nga nekkee xale ba ngay raam la nga daan def mbokki yi jëmm ju yem mi ngi nii jëm ju mën a ñaan mi ngi nii xam-xam bi yàlla def ci moom tey am na ñoo xamante nee nañ am na président bu siiw boo xamante nii toog na ci am réew ci Afrique gi yàgg fa loolu ñu ne jëmm ji moo ko fal li wa tax tey ma ne ko table laa bëgg nga teg ko leeral ñu ndax Sonko day nekk président wala le siège bi dañ koy jàpp tëj ko wala ku ko tëj réew mi yëngu wala kenn du ko tëj tey dañuy leeral Sonko ëllëgam ci politique lan la mais laata buy jug taxaw dañ koy bàyyi mu nuyoog askan wi ñu soog a xuus dugg ci dëgg-dëgg waxtaan wi ginnaaw réew mi nee nañ jëmm ji moo dàq ñaan kon dañ koy bàyyi mu nuyoog askan wi. salaamaaleykum sëñ dégg. Hmm. maa ngi nuyu ñëpp ginnaaw ba ma sante yàlla mm-hmm. subhaanahu wa taala mm-hmm. julli ci yonentam bu tedd bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mouhamadoul Mountakha sunu borom yàggal ko fi di ñaanal am di moom Serigne moodu Mbenda Fall mi toog jotaay maam Cheikh Ibrahima Fall mm-hmm. di ñaan yàlla sunu borom subhaana wa mu yàggal ko fi ñu ngi nuyu ñëpp sëñ dégg di la ziar ak mboolem say cameraman di nuyu waa télé bi di nuyu ñu ñuy seetaan Euh, jërë ngeen jëf. sëriñ maam Cheikh Fall du ma ne Sénégal xamuñ la ndax Sénégal ku fi kilifa di takk ndombal tànk xam na la surtout ñu dëkk ci état bi mais Afrique sous région bi jàpp naa ne ñoo la gën a maîtriser tey am na ñoo xamante ni ginnaaw yàlla fa ñu nekk ña nga fa nekk di nguuru te yaa leen sampu Sénégal lay nangul nañ leen da nga mën a ñaan. Sénégal lay nangul nañ la ne da nga li nga xamante ni moom mooy lasaraar surtout xaatim sëñ bi tey nga ne ma tableau lay teg leeral Sénégalais yi politique bi fu mu toll surtout M23 bi fi nekkoon ca 2012 faloon Macky Sall ak F24 bi fi nekkaat nii dëgmal ngir war a fal xalifa sàll wala Sonko wala sax Barthélémy Dias wala keneen ak keneen ñooñee ban secret moo mën a tax Sonko nekk ci bopp pouvoir bi ak ban erreur rek la Sonko mën a def ba tax du nekk président ñenn ñi ne la 16 coow nar naa am nga ne ma kaay ma leeral la. sëñ bi euh, dañ lay bàyyi nga jug taxaw ci tableau bi ñu leeral Sénégalais yi parce que borom xam-xam boo ko laralee da koy digtal. mbir yi jëmm ji mën naa ne jàngalekat la ndax xam-xam bi yàlla def ci moom. pour pourtant Sonko am na ñu ko bëgg naan day falu te xamuñ ne am na faay bu ndaw boo xamante ni bu ko defee du falu ndax lépp danañ ko leeral ci tablo bi. Macky Sall ñu naan troisième mandat mën naa nekk mais bu defee faay bu ndaw du falu tey borom bii di sëriñ maam Cheikh Fall dana ko leeral mbokk yi ñaari mbëri kenn ku nekk toog sa cumbukaay def nga sa open press ba pare kon li des mooy ku sa morom duma mbokk yi lii mooy xam sëñ maam Cheikh Fall M23 bi fi nekkoon 2012 faloon Macky sàll ak F24 bi fi nekk nii bëgg fal Sonko tey dañu bëgg nga leeral Sénégal yi ana mbir mi naka la demee. waaw jërëjëf sëñ dégg euh, laal nga ci point bu am solo. ni nga ko waxee noonu la demee. ndax euh, jamono jii dafa nekk jamono ju yéeme joo xam ne ñëpp jaaxle nañ ñu bëri tiit nañ ci ñaari parti yëpp ku ci tëdd guddi doo nelaw te ñoo yey nag bañ a nelaw ndax mbir yi boo ko xoolee ci wàllu baatin dangay xool ba mu yàgg rek bu teyee nga gis lii bu subaa nga gis lale loolu nag day wane ni ñoom ñaan ñëpp dañuy borom bopp te nag ñu toll ci jamono joo xam ne nag ku nekk da gis mu génn rek naan tey li ma gis cey nangam nangam nangam mhm. man nag duma bokk ca ña nga xam ne dama naan cay li ma gis mhm. cey nangam ak nangam mhm. wala may wax fii wala may wax fële ku ko xool xam ni kii kat li muy wax da koo teg ci teeyu bakkanam man lépp dama koy delloowaat ci ay chiffres ndax sañ dégg xamoo ni chiffre moo yor àdduna bi rawatina chiffre neuf parce que neuf fois deux moo jàpp yàlla bi ñu naan xayyu te mooy xayyu mm-hmm. ndax yàlla sunu borom subhaanahu wa taala ci turam boobu lay dundalee lépp mm-hmm. lépp lu war a jëm kanam mm-hmm. wala loo xam ne warut a jëm kanam luy dee ci politiquement ak luy dund ci politiquement liy dee ci nafsu di dee bi ñu xam ak ki nga xam ne du dee day gudd fan loolu lépp ci chiffre neuf ndax doomu aadama neuf bën bën la am neuf bën bën la am mooy doomi aadama moo tax nag ñu bëgg leen a présenté maanaam li ma gis ta tiital ma lool maanaam jëmm wane ni chiffre lu am doole la. te xam ne gars yi daal ñoom see nekk li ñuy def ñoom politiciens yi. manam du hasard. ku yaakaar ne hasard la rek booba xamoo. maanaam tëdduñu di nelaw. ñu bëgg leen a présenter nag. maanaam menace bi ma gis si wàllu baatin boo xam ne tey mouvement bii mujjee juddu. di F24. waaw menacé na ko ci wàllu baatin. daf ko menacé jëmale ko ci état wala. waaw da ko menacé jëmale ko ci état ci wàllu baatin. Mm-hmm. nga xam ne mbooleem ña xam-xam-xamu chiffre. Mm-hmm. te xam maanaam F vingt vingt quatre bële la muy tekk ci baatin nag laa wax. Mhm. waaye wàllu politique xamuma ci dara. Mhm. waaye menace la boo xam ne kat li ma ca tiital. mooy damaa gisoon la xewoon. Mhm. ca M vingt trois. ba tax mu fal président Macky Sall. dama ko gisaat ci F vingt quatre bii. moom laa bëgg nag wan àdduna bi. ba ñu xam ni kat xam-xam ak lasaraar. Euh, ñibbiwul toxuwul. mi ngi fi. xanaa kañ ku mënul bawut lu yàq yow la. ñi xamut. te mënuñu te nanguwuñu mënuñu. Mhm. ñooñu rek mooy problème bi kon sëñ dégg. Mhm. ñu ñëw ci table bi ma expliqué la. Mhm. nga xam ne tey képp koo xamee ni. Euh, tey yaa ngi ci pouvoir bi rek. war nga xool menace. bi nga xam ne menace la ci wàllu wàllu wàllu wàllu baatin. ndax M23. waaw moo juddu woon. ca jamono ji nga xamee ni président. Abdoulaye Wade dafi ne ñi naan troisième mandat ñii naan du déposé ñii naan day dem ñii naan dafay toog yàlla xiir ci xelu eh, maanaam ña fa nekkoon ci politiciens yi ñoom ñu toog xayma seeni xayma nag xam naa seen plan mystique la waaye daal nañu xaymaa seeni xayma dañoo génne M23 M23 waaw m moom lañ génne te ñépp xam nañ ni mhm. chiffre M. waaw 40 la. 40 la loolu kuy lasara tey dox ci wàllu chiffre. Mhm. di dox ci wàllu lettre. Uh-huh. ñëpp ndax man duma wax lu nit di weddi. Mhm. ndax àdduna lay waxal. Mhm. te li gën a soof sañ dégg. mooy wax loo xamee ne tey sóoroo ñi lay déglu. Ah, tey boroom xam-xam yu lay déglu. moo tax tamit lu nit di wax rek. war nga koo teg ci suuf su. maanaam yu leer. te lasara dafa nekk loo xam ne ni. lu lu riis la. lu riis la te du toxu te dëgg la. te danaa ko eh, nettali nga am ci wàllu baatin. waaw menace ci wàllu baatin. Mm-hmm. ndax jamonoy 2011. Mm-hmm. mouvement ba ñu taxawaloon tuddee ko M23. Mm-hmm. léegi nga xam ne M ñëpp xam nañ ni 40 la. léegi 40 plus 23 moo lay jox 63. léegi 63 nga moyee ci 18 ndax nee naa la 18. mooy xayu. mooy dundal loo bëgg mu dund rek. maanaam 18 a koy dundal. moo koy dundal politiquement waaye moo koy rey ci politiquement mhm. looloo waral boo ci mooyee dix huit mu des quarante cinq quarante cinq mooy aadama moo jàpp sunu maam aadama mi mhm. yàlla njëkk a def ab yonante mhm. wàcce ko ci kaw suuf moom soxnaam suñ naan xaw seydatu naan xawa nga xam ne quarante cinq yooyu nga moyewaat ci dix huit lu muy des vingt sept te ku ne xam na ni vingt sept moom vingt septième nuit ci mois de ramadan am na borom baatin yoo xamee ni tey fonk nañ ko lool ndax baatub laylatul xadar mi ngi ñëw maanaam ñetti yoon maanaam ci saar ba yàlla dafa baamu laylatul xadar ñetti yoon léegi trois fois neuf chiffre neuf ñëwaat na vingt-sept moo tax tamit chiffre vingt-sept boobu ñu naan mooy laylatul xadar léegi euh, vingt-sept boobu nga moyewaat ci dix-huit mm-hmm. neuf moo ciy des te xamoo ni neuf mooy président Macky Sall kon président Macky Sall lii moo ko faloon 2012. Macky Sall adat ko rek. boo ko adatee ci lettre. waaw neuf lay taxawee. moo tax tey bu ma doon wax ni tisi la mbasin boo xam ne dañ koo jël di ko dagg. waaw ba ko dagg. Mhm. ba mu ko ñawee ba noppi kuñ ko solal da laa cëq ñii mu buubu buubu ci seen kaw. waaw ñii daf leen a ëpp ñii jotu leen. waaye bañ ko solalee président Macky Sall da koo jot. daf koo jot léegi beneen mouvement judduwaat muy F24. ginnaaw M23 moo faloon Macky Sall 2012 léegi F24 digganteem ak Sonko bëgg naa nga ñëw ci. ndax mbubb mi dana ko jot wala def koy cëkk. waaw loolu nag moo ma ci ndax la ma gisoon fële. mbooloo ma la ñuy bëri bëri bëri bëri. Euh, borom chiffre neuf bële. di président Macky Sall moo génn ca mbooloo ma ñu fal ko def ko président même menace boobu dama koo gis ci F24 bii nii moo tax F24 bii juddu maanaam ku mu tere wut a nelaw mm-hmm. ci ñu yor wàllu pouvoir bi booba amoo koo xam ne xam na wàllu baatin mm-hmm. wala gis kat boo xamee ni jege na la tey gis baatin ta xam wàllu chiffre. kon seet am solo waaw seet am solo la looloo ko tax a jóg. Mm-hmm. ndax tey ka jege woon président ba danaan ko ah attention. gis naa la falo la la faloon. maanaam mu tàmbalee déroulé. mouvement boo xam ne ba mu juddoo yàggul. waaye fa muy mujj. mbubu la boo xam ne bu doon tisi la biñ ko daggee ñaw ko ba noppi biñ ko sololee dafa jot kii di président Ousmane Sonko. Euh, bala ngaa ñëw ci président Ousmane Sonko ak F24 ak chiffre bi lan la laaj ak fan la jeexee sëñ bi dégg naa nit ki boo koy seetal da nga koy seetal di ko gis. di ko wax ba wax ko ba mu nekkee ndaw la mu daan def bala ñoo leeral parti boobu ñu dugg foofu. waa kay jërëjëf sañ dégg. waaw seet moom bu ñu bañu toon damu. Mhm. dañu di ay taalibe. Mhm. waaye bu ñu bañu a damu dañuy wax ne amuñu si nawle. Mhm. ndax képp koo xam ne seetal naa la. yaay waatal sa bopp ne ma sëriñ bi. Mhm. man de kiñaan du ma dikkal waaye lii nga ma seetal. mësuma mhm. dégg bi ma juddoo ci sama way jur ba léegi. mësuma dégg ku ma ko wax. ndax seet boo xam ne daf lay tàmm dafay tàmbali. Mhm. ba nga juddoo. ba ba ngay nekk mag. maanaam loo mës a dund ci coona. dafa lay wax ba wax la dat ba. wax la bis ba. loolu bëreetul ci seet de. waaye sëriñ si dañuy làmbatu rek. boo doon wër téeméeri sëriñ pour nga gis koo xam ne da ngay ñëw mu ne la yónnee ma nangam ak nangam rek laa soxla ci ci ci ci say mbir. Mm-hmm. nga jox ko ci mu wax la ci loo xam ne ni yow yaay ëbbatiwaat ne sëriñ bi langa koy njëkk a wax. Mm-hmm. maa ngi waat ci yàlla ne lii nga ma wax ma suma koo dégg cib sëriñ. ci tele nag laay waxee. Mm-hmm. ndax tele boo ciy wax moom. gumba bu ne la kaa ñu sànnante xeer dafa joggi ci jalu xeer waaye joggi woo ci jalu xeer di woote kaa ñu sànnante xeer ndax saa boo waxee ndax dañoo nekk ci Sénégal looy woote ne mën nga ko wala xam nga ko na nekk lu leer ndax boo paree ñi lay ñi ñi ñi lay seetlu moo ëpp ñi lay seetloo sëñ maam Cheikh Fall bala maa continuer tey ci F24 bi ak Sonko tamit la siège bi ndax tëj dana am wala tëj do am sëñ bi dama dégg ne noob da nga man maanaam diggante góor ak jigéen téye leen ñu juboo mel ni mburu ak soow dégg naa yaa ngi ci def liggéey boo xamante nii boo xasee ba jàpp nit ki ci nopp amatul ku ko mën a dindi des fois nit takk nit dox ñetti fan mu dañ. di fa nit fas nit fas nit ci xànc yi mu def 9 jours toj. mais dégg naa am na secret booy noobee koo ci xas a jàpp du rëcc bala ñoo dugg foofu ñu leeral loolu. waaw xam nga liy waral loolu wax naa la ni doomu aadama neuf bën bën la yor. dafa am ay secret yoo xam ne lasara dafa lay jàngal lépp. ni mu ma def ba jàngal ma lii. nga xam ne lu ma ci wax kenn du ko dindi. te dañuy xam ne par parloo ma waxeewu ma sama bakkan. noonu moo lay jàngal nga mën a xam ni doomu aadama bii. diw mii la bëgg. nga jaar ko ci ay lettre jaar ko ci ay chiffres am foo ko jaar mm-hmm. ba damay wax nii mm-hmm. képp koo xamee ni rek sa sa bopp dafa jëm kaw say tànk jëm suuf buñ ma joxee sa tur jàpp la xanaa nga nekk leneen lu dul doomu adama waaye ngay doomu aadama ni man mm-hmm. maanaam buñ ko jaarale ci chiffre ndax doomu aadama bu amul neuf bën bën amut te ñetti façon nit yi rek ñoo am nit ku weex ku ñuul ak ku xonk ñetti façon jinne yooyoo am jinne ju ñuul ju weex ju xonk moo waral mag ñi bu ñu doon fas wëñ yañ doon fas mhm. ñu koy defee wëñ bu weex bu ñuul bu xonk pour bu fekkee catu nit ku weex la mhm. mu dañ catu nit ku ñuul la mu dañ catu nit ku weex wala catu nit ku xonk mu dañ kon yow jeeg bi jëkkëram jéppi mhm. bàyyi ko ca kër ga dem di doxaani ba sax jël di décision day takk ñaareel yow jeeg boobu bu la cherché man nga koo defal loo xamante ni jëkkëram da koy bëgg ba du tala doxaan keneen lu mu xam wax ko lu mu am jox ko moo tax na gaawuma ma koo defal ku nekk danaa la enquête ba xam lu la tax a jóg ci moom ba noppi. Mm-hmm. ndax loolu boo ko defee ilaa abad lay doon. Mm-hmm. du dañ. lu mu xamati wax la lu mu amati jox la ndax war na sax naa maa fi su dóori xim min xillin yàlla dana war na sax naa ma noccee maa la nga xam ne moo nekk fi su dóori xim ci seeni xol min xillin ci mbañeel moo tax loolu aaye boobu am na fu ñu koy jaar ak maanaam ci chiffres yi ba defal ci doomu aadama loo xam ne moom diggante boobu moom gën a bëgg rek waaye bañeel moom mënatu faa judd. ayca mbokk yi numéro téléphone Serigne maam Cheikh mi ngi noonu affiché képp ku ko ci woo di nga ko jot mbokk yi déplacé wu na ma nga Ziguinchor am ñu ne est-ce que Sonko état sañ naa déplacé wu def convoi nan daf koy jëli bu nanguut a ñëw lépp danañ ko leeral mais balaa boobu sëñ bi euh, jóge nga ci M23 ñu ñëw ci F24. waa M24 bi. li tax mu nekk maanaam euh, mel ni histoire dafa répété waat. mel ni histoire dafa répété ndax menace bi may wax ci wàllu baatin boo xamee ni war na tere nelaw. waa pouvoir bi. Mhm. mooy gis nga F. waaw ku ne xam na ne mooy chiffre 6. mooy F la. Mhm. léegi 6. Mhm. plus 24. waaw lu mu lay jox du 30. boo ci maye mooyee tur yàlla bi ñu naan xayu lu ciy des 12. président Ousmane Sonko ñaata lettre la 12 la. kon li Cheikh Samba Diarra Mbaye naan lu ne fi nit nee ak njëkkam. lu ne fi nit. waaw nee nag njëkkam. kon nag gis nga yàlla du nag ba problème am muy trouver solution. day jiital solution avant problème sañ dégg mhm. yàlla daa mel ni daa jiital solution avant problème mhm. parce que coow la li muy bëri bëri borom chiffre neuf bi rek mhm. ca kaw ca m moom la ñu parce que mbubb ma moom la jot ñu ñu ñu jox ko moom mu nekk mu nekk nguur gi waaye yàlla suñu borom subhaanahu wa taala moo moo ko dogal du nag ba problème am muy doog a trouver solution jiitaloon na solution avant problème loolu nag laa gisaat fii muy menacé di répété waat boo xam ne mouvement bi mhm. moo ma war moo ma moo ma xamal ni ñi dar président Ousmane Sonko. waaw ay ndaanaa ngi ngi ci biir. waaye gis na ca nag ay mag. Mhm. kama ca xàmme di sëriñ Saliou Fall moom sëñ Modou Moussa Fall. muy sëñ Saliou Sibis. waaw te kooku du doo du gone. te du doomi gone. te du satub gone mhm. na satub maam Cheikh Ibrahima Fall lamp Baabul Muridiina la doomi sëñ Modou Moussa Fall la. bi ma ko gisee rek laa ree ma xam ni kon F24 bi maanaam du hasard. nañu ñoom pouvoir bi nañu bàyyi xel kii boroom chiffre douze bii nii ndax la woon rek la woon la woon keroog mooy li fi tey rek maanaam histoire moo répété waat. kon Sonko mën na folli président Macky Sall. mën na ko folli la woon. Ah. moo rapetewaat fii xanaa ñu jaar ko feneen. sarax mën na lu ne nit ki toog ba toog sunu borom subxanahu wa taala xamal ko lii gis nga xam-xam. newul ci ay téere ci dëndu góor la ne. yàlla sunu borom subxanahu wa taala moo koy xamal ku ko soob. moo tax lasra dafa nekk lu riis loo xam ne gis nga ci tomb yi nii. ndax dañoo waxoon ni imaamul euh, Junaydi ak yenn ci borom xam-xam yi nga xam ne. danaa ci ñëw sax ci kanam foofu balaa ma caa dugg. waaye dinañ ñëw ci li ngay xamal ni maanaam benn na gaa yi tey tuuti ci élection yi nii. ku ci moytuwul da nga daanu da nga daanu ndax lu ko waral mooy yàlla suñu borom subhaanahu wa taala moo doon joxe nguur mhm. di ko jox ku ko soob waaye bii moom da cee wane kattanam waa ndax boo jëlee tuuti mulka tuutil mulka manta tashaa'u yàlla dane may jox nguur ku ma mhm. tuutil mulka manta tashaa'u boo ko xadde dee lum lay jox mhm. moo lay jox deux mille quatre cent vingt moom lay jàpp boo ci moyen 9 lu muy des. 2420 nga moyen ci 9. 2411 hmm. nga moyen ci 9. 2402 nga moyen ci 9. 2393 nga moyen ci 9. 2384 hmm. nga moyen ci 9. 2375 nga moyen ci 9. Hmm. nga xam ne boo koy moyen 9. di ko moyen 9 day dem ba ca 2033 nga moyen ci 9 muy 2024. kon coow faaw mu am mu am looloo waral parce que yàlla bàyyiwu ak jamonoom ji ak nguuram gi li mu wax ni la muy dëggal ni maay jox nguur ku ko soob loolu dafa répété waat fële. nguur yi fi jot a jàll yépp yàlla sunu borom subxanahu wa taala moo ko jox ña ko yor. waaye mille 2024 bi moom da coo opposé. yàlla dafa opposé wu. maanaam gën a wane ko wanewaat kattanam looloo waral vingt 2024 bi jaxasoo yi am. loola waral coow li. kon faw coow am. waaw faw coow am. faw ñii tiit ñii tiit. Mhm. ndax ñu bëri ñu ngi wax naan président Macky Sall warta bokk. président Ousmane Sonko du bokk. Mhm. waaye yàlla sunu borom subxanahu wa taala daal di ñëw. Mhm. wan leen na leen nag tuuxatil mulka manta tasaaw moo waral nag xam nga bu jékkee jékki rek. mu yomb ci ka war a bokk ñëpp xam ni war na bokk. ka waruta bokk ñu xam ne lépp war moom war war na bokk ka warta bokk ñu xam ni warul bokk ci war a bokk ñu xam ne war na bokk bu boobaa day yomb. moo waral faw kàttu gi jaxasoo ba ñëpp di tiit ba ñëpp di tiit yàlla waat kattanam ñu jékki-jékki ke ñëpp foog ni du ko doon mu doon ko ki ñëpp foog ni day folleeku yàlla ne ko nag man xam ma constitution xam ma deux mandat ak trois mandat ak yooyu li ma xam mooy décret rek ak sama dogal rek innama amruhu isa arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun sëñ bi ginnaaw réew mi ne nañ danga mën a ñaan ginnaaw réew mi nee nañ da nga bëri xam-xam tey sénégalais yi ñu bëri jàpp nañ ne càngat googu nga xamante ni yaa ngi koy def ci paan di ko tànk di ko def ci ay butéel nit ñi di ko sangoo am na ñoo xamante ni jàpp nañ ne bu ñu xëyee laaluñ ko rek duñ am wërsëg. Mm-hmm. parce que dégg nañ ne lu ndaw nga ci joxe mais koo ko jox bu ko laalee wërsëg gane si ko. Mm-hmm. ginnaaw lii lépp Sénégal lay xam nañ ko ci yow. Mm-hmm. chiffre neuf bi muy Macky Sall ak chiffre douze muy Sonko. ñii amul beneen chiffre boo xamante ni mën na nekk surprise ñëw dëpp carte gi ñoom ñaar kenn ban cee toog ci xam-xam rek. xam nga boo toogee professeur da nga koy laaj te ginnaaw jàngalekat nga te borom xam-xam nga jot na tamit ñu laaj la yépp yow sañ dégg xaw ma ku la tuddee sañ dégg waaye da dégg macha allah ndax li tax loolu. mooy amaat na maanaam ci pouvoir bi gis naa ci ñaar. Mhm. yoo xam ne plan B lañ. plan B. ak plan plan ci président. Macky Sall bu leen di jox na leen jox muy Amadou Ba. Mhm. neel benn. keneen ki sax génn na. muy Mimi Touré. ñoom ñëpp neuf lan Mimi neuf la. moom Mimi neuf la. mi ngi F24. waaw mhm. waaye nag. Mhm. mën na koo donn bu wér surprise mën na jóge ca moom. wala président Amadou Amadou Ba moom. mën mën na sëkk sëkk sëkk remplacer ndax mook Macky Sall ñoo bokk même biddéew. moo tax bi mu ko defee premier ministre damaa ree ma xam ne gars yi. lambatuwuñu am na lu leen dëy ndax Amadou Ba neuf neuf lettres la. àdduna Macky Sall neuf lettres la. li tax Aminata Touré boo ko adadee neuf lettres la. waxeewu ci ci parloo man xam-xam lay supporter waaye duma xool kenn ba wax la lu la neex damay xool rek ci wàllu chiffre di xool ci wàllu adat ci xilmul adat bi ma jàng. xam-xam moo am solo te xam-xam moo wóor xam-xam mooy capital xam-xam boobu ci lay duggee laaj la xeeti faj yi tey am na koo xamante ni dañ koo liggéey yàq àddunaam a am dara bu amee tey tey tey balaa ngoon am am ba yàqu. kii liggéey nañ ko mu tëdd ci lalu hôpital yi médecin bi di def analyse mais du gis dara am koo xamante ni dañ koo sànni kortu yaram wa di xëy di neewi tey liggéey yooyee nga am loo ma wax sànq ne ma lu liggéey garaaw garaaw garaaw mën naa ko toj ci lu yomb tey secret toj liggéey ak secret aar nit ki ba dara du ko mën a yàq loolu bëgg naa nga dugg ci andi ci leen waaw sëñ dégg. xam nga loolu li tax ma mën ci dara. damay faral di wax ni loo gisul fa nu ko defee. xamoo nanu ko defee ak kañ lañ ko def mënoo koo dindi. man dama lay njëkk a wax. ban année lañ la ko def. ak ñaata yoon nga tabax ñu màbbal la. wax la année bañ la màbbalee fa sa jafe-jafe euh, maanaam nekkoon ak kañ la tàmbalee. Hmm. wax la at yëpp bi nga nekkee gone ba ni nga nekk mag. gis gi ma koy gis ba wax la ko it foofee laay mën a sukkandiku pour mën koo dindi. Hmm. waaye ku la mënut a wax maanaam liggéey ba. Hmm. nan lañ ko defee. kañ nga ko sentir sa yaram. ak ban dat nga yàqulee kooku bu ne la mën na la defaral. te gisul maanaam ña la yàqal kañ lañ la yàqal mënu ci dara. su ma déggee si wax daal kon sëriñ bu mën mënta seet ta ñaan. sëriñ bu mën mënta seet. mënta ñaan te seet yombul sañ dégg ah, làmbatu ku ñuul ku gàtt ku gàtt ki mhm. ku xees ku njool ki mhm. ku nangam di làmbatu déedéet jis nga ñi mënuñu ñi mënul mhm. ba ba bawuñu maanaam ñoo jéem a bëgg a yàq nag agression culturel bi ci wàllu sëriñ si moo waral manque de valeur bi perte de valeur bi nga xam ne dem na ba sëriñu ñaan sax léegi nit ñi buñu la wooy da ngay xam ne ñii gëmatuñu dara te lasraal ma nga fëwoon mag ña seeni bagage dañ ko fee bàyyi waaye gars yi jànguñu xooluñu tàyyal nan ba noppi bëgg nag eh, rëyal garaam boobu ne sëriñ lan moo tax nee naa ñu bëri sañ dégg. danaa leen yóbbu retraite te danaa yóbbu ardo na dañoo toll jamono joo xam ne nag. ña di borom xam-xam te nekkoon ci ruq ba. dañoo war a génn. wan nit ñi ne leen réputation sëriñ si nga xame ni. Mm-hmm. tey ñu ngi koy yàq ci wàllu ñaan. Mm-hmm. tey mi ngi am ba ba noppi moo tax boo ñëwee dama naan la bul wax dara. Mm-hmm. laaj la yi ma lay laaj. nga jox ma ko ma wax la. cinq minutes nga woowaat ma ne ma ay na yuwen sëriñ bi ba ma juddoo ba léegi. mosuma dégg lu mel ni xam nga nee naa. gone bu toogoon fii. beneen seet la. beneen seet la bu gonee toogoon fii moo xam 16 ans la am moo xam lu mu am. Mhm. bu toogoon fii dama koy woo ba mu ñëw ma ëf bopp bi. Mhm. ëf loxo yi. maanaam ne ko nag ma président Ousmane Sonko lan la nekkee ca Casamance. Mhm. loolu mës nga koo dégg fenn. maa ngi koy mës nga koo jis fenn. laaj ko waa vingt 24. wala nga laaj ko waa Ndar baa nga laaj ko waa Mauritanie. fii lay toog ma ne ko tàllalal mu tàllal. ma ëf ko jëmm ja ñëw. ma ne ko da koy wan ba wan ko lu nekk ci biir bàmmeel wan ko ba wan ko bu duggoon ci biir kër gi fépp fu nu suul daf lay wan ne la sullil fee wala sullil fii te it bu ma neexee it mën a woo nit ka nekk France ne ko diw mu ne ah, ma ne ko yaa ngi sol yére bu mel nangam loolee nga tëyee sa loxo bi sa loxo càmmuñ bi nangam la bu fekkee dafa yor cigarette ma ne ko fayal mm-hmm. loolu mooy seet mm-hmm. waaye léegi loolu bi ma ko waxee bëri na ñoo xam ne daf leen a yéem. Mhm. moo tax nag ma ne xam-xam a ngi bëgg a mhm. ma nga bëgg a naa naax saay loo xamee ne du dara ci wàllu baatin am na yu ko faw xa kaw. Mhm. yu ko féete kaw yu ko faw xa. waaye da ngay gis day rëy ci maanaam doomu aadama yi rawatina ñi ñuy tuddee sëriñ. tey lay wax sénégalais yi nga xamante ni. mën nañoo toog fii jàpp canal di seetaan match ba xew ca Parc de Princes ca Paris. gëm ne lii ay fil ak science moo ko dogal bañ mën a toog di ko seetaan direct te bu leen ab sëriñ waxee ñu bëgg ko weddi dafa mel ne nit ku ñuul dese naa gëm boppam ci côté boobu. waaw parce que li waral loolu mooy te ñoom ñëpp lépp ñu ngi ko jëlee maanaam ci alxuraanul karim gis nga tubaab yi lu ñuy def. Mm-hmm. nii boo demee ci téere sëriñ Modou Dem mm-hmm. bi muy tuddee Mawlidul Zamxaan. Mm-hmm. Mawlidul Zamaan bu bi mu bind muy tafsir boobee mu def def ko ci wolofal rek mu ngi ko cay leeral nga xame ni faatiha neuf mim la maanaam secret boobu tubaab bi lu ñuy def def ko douzaine def ko chiffre douze maanaam ñu ngi ko jëlee ci douze mim yi nekk ci faatihatul kitab waaw nga xam ne kon boo xoolee kumti leeraloon naa ko comte yi nga xam ne keef bi dafa jàpp kaanat xawaariran min fidatin xadaroxa taqdiran mim bi jàpp maa xalaqallahu samawati wal arda ma baynahuma ila bil xaqi taa bi jàpp taa siin miim tilka ayatul kitaabil mubin yaa bi jàpp yawma tubaddilul arda xayra ardi wa samawati wa barazo lillahi wahidul xaxaar nga xam ne muy 79 léegi 79 boobu damay génn gis oto yoo xam ne tubaab bee ko liggéey ba noppi def ci chiffre 79 sëñ bi est-ce que jotul nga ubbi euh, Franco di jàngale xam-xam parce que yi ngay waxtaanee nii lii dama naan euh, état moo waroon jël responsabilité am ubbil la clinique. Euh, ngay jàngale xam-xam di jàngale lasraar. parce que ci côté faj dama gis. ñu takk ko mook ay mbokkam yeew ko ba mu dëgër. mu ñëw nga ne tekki leen. ñu tekki nga am loo wis mu jug doxi soxlaam. te lii gisaguma sax hôpital def ko mais yéen borom xam-xam yi da ngeen koy def te lu ci bëree bëree bëree bëree lépp ci alxuraan ak sunna ngeen koy lal. tey dama jàpp ne état moo desee jël ay responsabilités am ci fajkat yu mel ne yéen parce que ku mel nii da nga ko war a jox ay matériel ne ko li ko dalee hectare bi ba hectare bi yaa ko moom dee fi faj parce que yéen tamit yéen nga jàmm yàlla ci jeunes yi. jërëjëf sëñ dégg wax nga lu am solo. ndax euh, loole nga gis koo xam ne dañ ko yeew ñëw nga ne yeewil bàyyi leen ko mu bàyyi nga wis la ngay wis mu jug doxi soxlaam loolu mag ñi ñu ngi ko doon defee ci xaatim bi ji nga xaatim bi li muy ndaw ndaw ndaw ndaw boo ko bindoon jox ko nit mën na koo xeeb ne xolalu ndaw lii mu ma jox waaye fekk na alif bi moo jàpp aaye aba ahadin min rijaalikum baa bi jàpp aaye badixu samawaati wal ardi jiim bi jàpp aayay jaaxilul malaaykatu mhm. euh, deel bi jàpp aayay daxwaaxum fiiha mhm. euh, xalkubeer bi mhm. jàpp jàpp xuwal awalu aayay xuwal awalu wal aaxiru léegi waaw bi jàpp aayay waradallaahu lazina kafaroo zaay bi jàpp aayay zuyna li lazina kafaroo wala zuyna li naasi euh, xee jàpp xee miim xayin sin xaaf taa jàpp taaxa ma anzalna muy batadun zaxajun waaxuñ nga xam ne li muy doon doon doon doon lu ndaw tey mag ñi daa nañ ko bind boo leen indilee dof ba boo ma indilee dof damay tracé rek na leen yeewi leen ko boo ko yeewee dof ba mooy jugal boppam fu mu mën a jaar buñ ko bàyyee it xaatim bi mooy tënk rab ba ba mu ñëw ba fi nga bind xaatim ba mu toog farankulaayu jàkkaarloog yow nga di ko posé ay question mu di la mu di la tontu kon tey neuf musallas neuf bunt la léegi nag boo euh, kii euh, araf yii yëpp boo ko adadee daf lay jox quarante cinq léegi quarante cinq fois neuf ah mooy quatre cent cinq yi nga xam ne moom laa moyen fii kon dikkaat na léegi quatre cent quatre cent euh, deux mille quatre cent vingt neuf boo ci moyen quatre cent cinq lu ciy des. deux mille deux mille vingt quatre. moo tax waaw matadun waax bi. Mhm. moo tax ma jël ko def ko ci kaw. mu sémbool lii. Mhm. waaw. sëñ bi dinaa la laaj. Mhm. ki am jafe-jafe. papier. parce que tubaab yi fexe nañ ba. naqaril yoon wi ba léegi tukki dafa jafe. mais nit day naxasaaye def li muy def ba tukki dem bitim réew yëf gën a jafeete foofu problème mu papier tey nit ki am problème papier bëgg nga dimbali ko wan yoon nga mën a jaar ak moom ba mu am papier wala sax ku nekk fii euh, bëgg tukki secret kayit bëgg naa ñu ñëw ci. waaw xam nga da dégg ñu jël benn aaya rek. Mm-hmm. ne wa xusira li Sulaymaana junuuduhu minal jinni wal insi wa tayri fahum yuzaxuuna maanaam aaya tukki la ñëpp daw. di ko mm-hmm. jëfandikoo. Mm-hmm. te mën naa faj aajooy kii te du faj aajooy ñi sa des. loolu la ñu war a ba. nangam ku ko def tukki. déedéet nit ku ne. am na lu la composé loo xam ne. ak lu la taree am kayit. da ngay gis koo xam ne bi mu ñëwee Europe. Mhm. diirewu fa at am kayit. nga gis ko fa am 10 ans amul kayit. fekk ne kii dafa am fu mu jaar. kee amul fu mu jaar. kon nit ku nekk balaa nga koo mën a ñaanal mu am kayit. Mhm. foofu nga wax ko mu xam. jafe-jafe ya muy dund mhm. kañ la ko dal mhm. ak kañ la ko arrivé mhm. ba mu ba moom loolu mu nekk souvenir ci moom ndax man ni may seetee dat bu ma la mës a wax day nekk souvenir boo xam ne yaa may waxal boppam at mooma day laa yàqule wala sëñ bi at mooma day laa feebar ñu sol ma ngelaw wala at boobu de nangam nga nekk nga doog nga wax ko lépp at yépp bu ci nekk mu limal la jàppal la at yi par at léegi nag kooku xam nga jafe-jafeem kon jafe-jafe yooyu bu dañu du mën a am kayit nga mën fa jaaree nag defal ko loo xam ne day am kayit waaye nag li ñu war a bàyyi am naa fi nangam loo xam ne ku ko def tukki mm-hmm. aaye sangam day def nangam mm-hmm. aaye nangam nit ñi dañuy sangoo sangoo sangu sangu sangu ba jaaxle mm-hmm. am na ñoo xam ne dañuy dem ci sëriñ pour mu ubbi leen mu tëj leen parce que li ko waral mooy nit ku nekk am na lu ko ko posé di nga sa tur yàlla man soo ma joxee la nga may jox danaa la génneel sa tur yàlla Hmm. loolu mooy xam-xam te dangay xam ne diggante ba nga ma koy jox ak ba ma lay tontu moom dugg di xool uh, at moom nga ma wax ban bis la jàppoon da ngay xam ne maanaam xam-xam rek ko wóor gis nga. Hmm. xam-xam. waaw dafa nekk lu weex tàll soo mu weex tàll la ñuulut. nit ka mooy ñuulal boppam wala nga gis sëriñ rek yaakaar ni sëriñ lu neex la sëriñ lu nooy la nga dugg ci sàcc ndënd yomb na waaye fa nga koy tëggee moo jafe fa nga koy tëggee moo jafe eh, sëñ maam Cheikh Fall eh, ñu bàyyi la nga toog parce que ñu ngi ci njeexantalu émission bi bu ko defee ñu leeral yenn point yu yoo xamante nii war nañ cee dimbali askan ku ma message ne ma boo demee ci sëñ maam Cheikh Fall laaj ko parce que dafa benn sëriñ di ko ñaanloo ci wàllu jëkkër sëriñ bi seetal ko ne ko yow ñaan mënulaa laa jàpp ci côté jëkkër maanaam doo sëy man nag maa ngi doog a yëg ne am na jigéen ñoo xamante nii seen rawaan kenn mënu leen a ñaanal ba ñu am jëkkër parce que sëriñ bi moo ko wax loolu moo tax ma ne question boobu ginnaaw professeur nga ci xam-xam su ma ñëwee dinaa la ko posé ndax solution am na foofu. sëñ dégg euh, ñi may déglu nañ ma baal. waaye kooku bu ñemee sëriñ boobu moom. ne ko daggal sa kurus amoo xam-xam. neel kañ mënuma moom loo mënul bul ne kenn mënu ko neel mënuma ko. waaye am na loo xam ne ni dafa am mooy li ma doon wax rek nit ki boo ko seetee ba gis léppam day am maanaam e, lu yàlla sunu borom mooñ ci moom loolu boo ko jëlee muy turu yàllaam wala muy lenn loo xam ne ni e, chiffre boo xam ne chiffream la am na loo koy booleel boo ko ko defalee boo ko ko defalee boo ko defaloon sax jigéen joo xam ne moo gën a ñaaw ci àdduna bi góor ñi dañuy mel ni ci moom ni weñ bu gis màngo bu àndoon ak ki dàq ci Sénégal kooku taaram dootul feeñ duñ ko gis moom rek lañuy ñuy gis am na loo xam ne jigéen joo ko defal moom xanaa mu dàqewaat waaye bu dee boroom kër rek la bëgg ku nekk dana fëgg buntam waaw sëñ maam Cheikh Fall ñu bàyyi la nga askan wi lay suivre ci MPROD TV waa kañ jërëjëf sañ dégg euh, ñu ngi wax euh, di nuyuwaat ñëpp rek di wax ni lu jub euh, ci wax ji ngeen xam ne baaxu suñu borom la lu ci dëng ngeen xam ni Euh, matadi doomu aadama moo toll noonu. Mm-hmm. waaye loolu lañ doon kii rek di wax ni senegal na ñëpp ànd ak dal. Mm-hmm. tey sàkk sarax. Mm-hmm. di sàkk sarax. tey tey tey maytu bu baax a baax a baax ndax lépp mënee su koo wax. lépp mënee su koo wax waaye na ñëpp ñaan jàmm. na ñëpp ñaan jàmm. waaye nag di fàttali nit ñi rek ne leen la doon fal buur yi ci yaa xayyu ba léegi mi ngi fi Ousmane Sonko dafa am lu lu manqué ca moom rek président Macky Sall moom it kazalika kon nag la woon te mag ñi bàyyi ko fi mi ngi fi ku ñu seet si ñun insha allahu rabbi ñu defal la loo xam ne moom li fi mag ñi bàyyi woon rek ayca mbokk yi dégg ngeen waxtaan wu am solo wi sëriñ maam Cheikh Fall waxtaanee moom nag kàngam la te borom xam-xam la professeur la ci wàllum ah, lasraar kii toog tey bu doon jogante la ku lekk avance am di bëre ba euh, di mercredi mardi soir nga delloo ko avance am li ko waral mooy dafa am lu yàlla def ci moom ci xam-xam bu dee ci côté xob côté sunguf lu ne la ciy def di ci fal nit bu dee ci côté alxuraan gis ngeen ni mu tegee xaatim bi di ko bindi da ngay xam ne kii dafa maîtriser lii jëmm la joo xamante ni dafa am lu yàlla dogal ci moom muy fajkatu aajo lii wa tax ku jëflante ak moom jëflante ba rafet te day temps. ci ñaan yàlla mbokk yi loolu nag moo jafee sëriñ buy jël temps ci say mbir di sonn ci say mbir liggéeyal la ba say mbir jag sëriñ maam seex Fall numéro téléphone yaa ngi doon affiché képp ku ko ci woo rek di nga ko jot mbokk yi ñu doon topp duñu ñu ci MPROD TV yàlla na ngeen bëri jàmm ci dara jey Muhammad Rasulullah